désigner un candidat mooy candidat boobu noonu les règles et procédures du parti ci la ñu jaar te règle et procédure moo tax nit ñi damay dégg ñuy wax plan B plan Z et cetera Pastef n'a pas un plan il a un projet. d'ailleurs donc foofu il faut nit ñi xam ko benn la deuxième chose mooy dama ne la haute autorité bi su décider donc voilà ñu investir c'est très compliqué Ousmane Sonko moo tax ma ne nit ñi wax ay plan B ay plan C et dañoo sax xamul xam nga man maa ngi ciy doog wax li ma la mën a wax mooy c'est Ousmane Sonko qui sera le candidat de Pastef les Patriotes. alors Ngouda li nga wax nii sa vœu la. non waxuma la sama sama vœu may mun dama laa waxal letat du droit xam nga xam nga tamit xam nga tamit il faut non foofu il faut ñu xam l'état du droit xam nga xam nga lu tax ma jàpp li ma jàpp xam nga lu tax ma jàpp jàpp waaw parce que fulla waxu fulla la parce que ay nit mënuñoo taxaw fii Sénégal nit ñëw taxaw am axat ak yella fam ñu ne dañ koy effacer c'est ça le mot gis nga li nga may wax posture bi ma taxawee mooy ñoom dañu ne dañuy effacer Ousmane Sonko nan lañ koy effacer mooy jàpp nañ ko moom bu yàgg na ko wax nee na man su su suñu su lu ma neex lu neex su amee damay sant yàlla lu naqari damay sant yàlla man bés boobu bi ñu ko jàppee dama ne même suñu jàppee Ousmane Sonko day sant yàlla lan la ñu def dañu dem dindi poster am dindi ay photom ma romb fii noo xaaral rek li may am na solo Macky sàll ñu gis poster am mu taxaw def nii ñu ne dañ koy effacer gis nga posture bi ma taxaw mooy chaque jour su ma xëyee dinaa bind ci moom chaque jour su ma xëy dinaa wax ci moom parce que tamit am na loo xam ne du ñu ko nangu bu mbiru yàlla amee bàyyil ma ñëw ñu xam ne mbiru yàlla la mais ay nit du ñu taxaw nekk ak seen i concitoyens defe ne ñoo leen ëpp sañ-sañ wala ñoo leen ëpp dayo ba dañuy taxaw ne dinañ leen effacer Ousmane Sonko dama ne am na loo xamante ne yàlla moo ko ko may. dañ ko ko nangu mais mais Ngouda waaw balaa ngay ñëw balaa ngay nga arrêté sa transe bi. <laughs> non non non yow yow <laughs> yow yow da ngay boole Sénégal de du ko ko nangu xam nga <laughs> yaa ngi ko wax loolu da déedéet. li may wax nii yow ma gëm la. <laughs> non da nga da nga aalu. waaw c'est <laughs> parce que man j'aime pas l'injustice. je veux qu'on revienne à la réalité. j'aime la la la la man je suis dans le factuel. la mooy euh, ne ñoom ministre de l'intérieur nee na rajee na Ousmane Sonko. war leen acte. Euh, bu ñu rajee Ousmane Sonko la la conséquence directe mooy euh, article vingt neuf du ko may mu nekk candidat xaaral rek. yow en tant que euh, président de la haute autorité teyit nga bokk ci ñi nga xam ne euh, dañuy xelal parti bi euh, d'ailleurs pour investiture bi yow dugal nga ci sa loxo est-ce que waru leen envisager un plan euh, B euh, boo xam ne au cas où la candidature de Ousmane Sonko n'est pas acceptée euh, Pastef wala l'ex-Pastef wala la coalition qui va porter les les les pastefiens mën a am un candidat est-ce que loolu sa responsabilité. parce que nit da ngay am xam nga xam nga déjà yow yow xam nga li ngay def tooñ la. yow tooñ la li ngay def ma tooñee. da ngay tooñ. <laughs> première chose mooy man je ne suis personne. pour parler de plan B pour. parce que mais yaay lijjanti investiture yi. waaw man investiture ba ma ko lijjantee pare naa ci Ousmane Sonko la ñu désigné à l'unanimité benn pare nañ ci pare naa ci. ne faites pas l'erreur des libéraux. man dégg nga li ma dama dem Amadou Sall dafa toog fii. ne Karim Wade dina ñëw et il sera candidat. xam nga no dans ñu ñu ñu ñu ñu désinscrire Karim Wade des des des listes électorales. Euh, euh, modifier le code électoral en décembre 2018 euh, Karim Wade n'a pas pu. may Maïmouna c'est-à-dire discours bi ngay wax nii discours bi nga c'est le discours du sens commun xam nga ñun nous sommes des gens très réfléchis gis nañ lu bari nag ndaw laa ci li may def. c'est pas pour rien d'ailleurs ñu dénk ma li ñu ma dénk gis nga Ousmane Sonko il est intégralement éligible mm. et il sera candidat de gré de force loolu man du sama langage il sera candidat laa la wax benn la deuxième chose mooy gis nga c'est-à-dire man su ma gisee kuy wax plan mon plan dafa may def ay ree xam nga moo tax parce que Pastef ñoom liir naa seen Pastef amuñu plan ñoom ils ont un projet Et Ousmane Sonko, c'est un homme politique qui sait que, n'est-ce pas, un leader ne dit jamais j'ai un plan. Il dit j'ai un rêve ou un projet. foofu laa mu ne. léegi euh, tey situation bi bi bi am nii euh, daan dan daan am mu am une mobilisation générale aujourd'hui mu mel ni les gens son sont sont amorphes euh, les les les les Sénégalais les euh, Sénégalais Euh, yenn interdiction de manifestation yi euh, surtout du côté de l'opposition euh, les principaux soutiens de de Ousmane Sonko lan la la situation boobu di di di inspiré bi ñu rayee dammel yi fii Sénégal dañu hmm. ray dammel yi donc le nekk dafa taxoon sénégal yi ñàkk résister dafa tax ñu amul Cheikh Ahmadou Bamba taxawul indi sa forme de résistance passive mais taxaw taxawaay bi mu war a taxaw. ñan ñoo résister. non dama la bëgg a xamal ne la yow li nga wax foofu laay ñëwee dama la bëgg wan ni la fii dëkk boo xamante ne la nit ñi ñuy xañ liberté à chaque fois dañuy am une forme nouvelle de résistance en transformation en de grandes mutations Sonko nama naa la mais ça hante les stades ba ay nawetaan ñu arrêté ko. très bien. c'est une révolte. da nga maa kon plagier kon xam nga ni révolte la. lim kon kon kon xam nga li fi amoon du violence c'est des révoltes. non non si may ma c'est-à-dire que da nga ma conforter dans ce que j'ai dit nous sommes nous sommes nous sommes dans donc ce sont des révoltes man da ma conforter c'est une forme de révolte de révolte pacifique de ses partisans euh, non mais non de non bu wax ses partisans da ngay jum ce ne sont pas seulement ses partisans des sénégalais ko nekk non non xam nga lan moo tax son Sonko nekk candidat mooy l'état du droit sénégalais